aywa ñu euh, wax ci euh, ba tey mbir mu soxal xalifa euh, Sall ndax bis ni tey la woon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sattumbar atum 2018 Soham El Wardini wuutu ko ci siisub meerub Ndakaaru ndax bu leen fàttalikoo xalifa danu ko révoqué woon fanweeri fa ak benn ci weeru août 2018 ba tey ci nag bi nu ko rek tegee ay daan mu soxal mbiram caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru Soham El Wardini biñ ko falee mu nekk maire mu wuutu xalifa Sall moom sax mooy euh, jigéen ju njëkk euh, doon euh, maire ville de Dakar ñu ànd ci li ñuy fàttaliku tey dellu siwaat léegi léegi. ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre 2019 euh, ci la président Macky Sall gracié woon Khalifa Ababacar Sall euh, gannaaw nag bi mu nee woon ci kaso bi mu nekkoon moom maire bu Ndakaaru ñu atte woon ko fanweeri fan ci weeru mars 2018 euh, tegoon ko daan juróomi attu kaso ci mbirum caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembar 1916 eh, ci la Blaise Diagne woote woon ab loi bu yees bu doon wax ci jamono jooju ne ñi juddoo ci commune yi di Saint-Louis Gorée Rufisque ak Dakar dañu lay jàppee ni citoyen français Madi Sissoko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre eh, ci la faatu ci ndakaaru gannaaw nag feebar bu yàgg bu ko tëraloon mu amoon juróom-benn fukki at ak eh, juróom-ñett instituteur la woon de formation nekkoon itamit homme politique eh, ci Sénégal Madi Sissoko nekkoon na ay yoonu yoon jëriñ gannaaw indépendance bu Sénégal. ñuy taxaw tey ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent eh, ci weeru septembre atum 2018 di bis bi ñu tegee Soham El Wardini ci bopp mairie bu ndakaaru mu wut woon Khalifa Ababacar sàll mu ñu fa jëlee woon ndax coowal caisse d'avance ba fanweeri fan ak benn ci weeru août 2018 moo nekkoon nag première adjointe au maire bu Khalifa Sall moom Soham El Wardini tey nag mi ngi dellusiwaat rek ci bëccëg boobu ñu ko doon fale maire bu ndakaaru waaye gannaaw bi mu nekkatul maire tamit tey jii lan mooy dundam. bés la boo xam ne. man duma ko fàtte mu nekkoon ci ay conditions yu metti nag ndax buñ fàttalikoo boobu histoire caisse d'avance bi man ma nekkoon première adjoint xalifa sàll di assurer intérim bi ba ñu révoqué waaye neex-neex bi ci nekkoon mooy li xalifa tànnoon heureusement ñun conseillers yi ànd ceeg man tànnal ko li mu bëggoon yàlla def ñu élire ma ma waroon fa toog nag benn at rek waaye mbirum yàlla ni ñuy wax toog naa fa encore ñetti at lu bees la woon nag ci mairie Dakar ndax benn jigéen mosuloon jiite maire ma nekkoon première femme boo xam ne élire nañ ko ville de Dakar te ma nekkoon itam première femme boo xam ne moo nekkoon premier adjoint mosuñu am premier adjoint lu jigéen ci mairie Dakar bi ñu amee indépendance ba léegi sentiment mitigé daal li ñuy waxee en français ndax bu ñu sañoon xalifa moo naroon a terminer mandat boobu waaye yàlla dogal nag dog-dog am ah ñu tànn ma fa ci ndigalam ndax moo ne woon nañ tànn soam mu assuré intérim bi moo waxoon itam nañ tànn actuellement ci lan laa nekk dellu ci li ma nekkoon rek avant xam nga man euh, dama nekkoon ci social bi nekk ci développement communautaire mënuma toog duma def dara mais pour wax leen dëgg rek vraiment <laughs> je ne m'ennuie pas au contraire euh, maa ngi ci activité yi ak suma association yi affaire bi nag du du rek depuis élection yi jeex ba léegi wax dëgg yàlla noppaluku naa bu baax mais na léegi nag commencé waat naa reprendre sama activité yi dellu ci la ma nekkoon rek liggéeyal sama réew xam nga foo bëggee liggéeyal sa réew moom foo munti di nekk muy politique muy leneen da def. non ñu ngi ci loolu daal yal nañu si yàlla jàpp ngeen ñaanal ma ci yéen tam. kon yaay dama ñëw pour nga ñaanal ma. xam naa ne ci nga dëkk sax mm-hmm. nga ñaanal ma ñaanal xalifa mm-hmm. mu teel a génn ñu dellusi fii ñëw feete ko fii ci sa kanam aywa mu nekkoon euh, Soham El Wardini euh, nekk euh, jigéen ju njëkk a nekk première adjointe ay jigéen également bu njëkk toog ci si sub mairie bu ville de Dakar Chérif dégg nga ni mu ko waxee mu nekkoon quand même ay mu nekkoon ne ci ay condition quand même yu metti mais c'était une belle expérience pour cette grande dame. une très grande dame Fatou comme ni nga ko waxee waaw kii quand même il faut rendre hommage pour li nga xamante ne def na ko en tout cas ci politique mais aussi ci. ville bu Ndakaaru ndax ñett yam yi mu ko jiite am na ci wàllu réalisation yoo xamante ni yu bëri yu mu fa def Euh, te bi mu ñëwee aussi surtout contexte bi mu ñëwee moo gën a compliqué parce que ñëw na fekk déjà tension am entre euh, ville de Dakar ak ce qu'on appelle l'état central en tout cas te président doon ko jiito muy loo xamante ni moom def na benn réconciliation bi même xalifa Sall mi wax tey wàllu amnistie buñ ko gracier en grande partie c'est grâce à elle parce que en tout cas moo ci doon dem di dajeeg Macky Sall di ci waxtaan waaw mu seetaa yi jël ci ay initiative dem nañ ba sa dialogue bi nga xamante ne amoon na palais de mu fa jëlee parole moom wax fa lenn Euh, ñu mën a féexal Khalifa Sall mu daal di mën a ñibbi këram quelque temps après kon dafa mel ni euh, càkkuteef googu président mujjoon na ko def daal di gracier xalif xalifa mmh. image bi ngeen mujj a wane aussi dem na ci wayjuru Khalifa Sall ni moom it dëdd na mmh. na ko vis-à-vis déjà de Khalifa malheureusement mmh. la suite on la connaît parce que quand il s'est agi quand même waroon a déposer candidature pour une peut-être probable réélection taxawaay ba l'a vu parce que Khalifa a préféré ki nga xamante moom mooy Barthélémy mi nga xamante tey moom moo fi nekkoon ba dernière minute c'était très compliqué il a fallu que moom sawaam mu dem ci waa union citoyenne bunt bi ñoo ko ma ñoom jox sax benn euh, réew mi mhm. dañuy am ay taxawaay am solo mën nañoo xeex ba mbir sotti mais après gis nga leen gars yi jaar leen suuf am taxawaay yoo xamante ne taxawut muy loo xamante je pense que c'est pas un peu de la reconnaissance tout ce qu'elle a fait en tout cas pour Khalifa Sall mais moom gis nga ko elle garde toujours li nga xamante benn sans rancune quand mhm. chaque fois di ko am muy lu am solo beneen bi tam mooy dernier combat bi mu gagné mooy li xew ba ki dem nga xamante mooy marché Sandaga. Mhm. doon na ko xëccoog euh, maire bu Dakar Plateau ba kaay mhm. commencé sax di ko démolir ba ki dem. Cour suprême jox na ko ci dëgg même si elle n'est plus de Dakar quand même par principe parce nga xamante ni quand euh, am nañ léegi arrêt bu cour suprême bi ñu wax ci parce que mënuñoo daaneel marché boo xamante ni aussi nee il faut arrêter wala suspendre li nga xamante ni moom mooy démolition bi te am mm-hmm. ay ay coupable wala ñoo xamante ni war nañoo rendre compte jëm ci war lu tax ñu def ko mm-hmm. parce que justice nee na waruñ ko woon def donc ñi ko daaneel mm-hmm. euh, waaw euh, je pense qu'elle a été officieusement euh, la, la la de de Dakar euh, ba muy nekk adjointe déjà bu bu Khalifa Sall jusqu'à ce que Khalifa Sall dugg dugg kaso mu mu mu nekkoon donc ki nga xamante ne moom moo assuré l'intérim jusqu'à justement cette cette élection bañ ko falee avec 64 voix sur 90 suffrages exprimés donc 83 et l'union voté woon ak 7 nga xamante ne dañoo a def. Euh, vote par procuration mu amoon euh, tamit ñaari abstention et là elle faisait face notamment à Banda Diop euh, qui a recueilli onze voix ak Moussa Sy qui a, recueilli, recueilli 13 Donc ñëpp yaa ñëpp je pense que le discours il est unanime euh, quand on quand on parle de Soham El mu di benn femme battante euh, ba pare euh, jamono jooju ñu bëri waxoon na ne qu'elle méritait quand même euh, son poste muy fàttali que moom jamono ji bu nekkatul ci politique mu ngi ci sociale bi parce que effectivement moom ci société civile. lañ ko lañ ko xamee woon. surtout dans le dans le développement communautaire voilà exactement mm-hmm. donc mu jëf mu jot ci def ay jéego yu bëri ba muy nekk maire wàllu boobu donc euh, engagé auprès des enfants ak tamit li nga xamante ne moom mooy les quartiers en en difficulté mu yàgg ci def euh, liggéey ci wàllu boobu balaa sax muy doon euh, dans la muy nekk dans la vie politique donc on rappelle également qu'elle a été mm-hmm. yu bokkoon AFP mm-hmm. daal di koy repérer en en Euh, mu nekkoon euh, mbiram Soham El wax ni ma ko waxee bis ni tey lañ ko faloon euh, ci atum 2018 mu wutu Khalifa Sall ñu fàttali ne Khalifa Sall njeexte njeexintalu weeru août ci lañ ko tegoon ay daan rek mbiram caisse d'avance mu coow lu bëri yóbboon ko foofu nga xam ne moom mooy kaso gannaaw ba nag itam ci lañ ko président Macky Sall gracier ba tey jii ñu tudd mbiram amnistie mu soxal ko soxal Karim Wade lu ci mën a am jàpp leen Soham moo nekk jigéen ba jamono ci ñuy àddoo benn soxna euh, bu jiitee mairie euh, euh, bu ville de Dakar naka noonu benn jigéen bu nekk première adjointe pardon. man elle est définitivement entrée dans l'histoire. définitivement entrée dans l'histoire femme. effectivement maire bu Dakar maintenant retrait vie politique nag c'est un peu violent l'arène politique ces dernières années moo tax ñu ci bëri xëy na. Mhm. ils sont dégoûtés ba def retrait mhm. parce que saaga yeeg wax ju ñaaw jeeg gën mhm. a quand même ñëw xëccoo Sénégal parce que am nañ ci am nañ ci droit quoi mais saaga yooyu mhm. moom moo tax ñu ci bëri préféré retiré wu retiré effectivement parce que euh, soo àndul ak man soit tu es contre moi bi moom moo moo moo fi bëri mais quoi que l'on puisse dire euh, Soham El Wardini c'est une grande dame euh, qui a fait ses preuves à la tête de la mairie de Dakar sept heures jot na ba tegal fukki simili ak juróom benn léegi-léegi ñu àddu ci xibaar yi ak Serigne Cheikh